يا همة سيخي اهدري لنا بهذا المعذر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بسفري ربي سهل لي صدري ويسر الأمر وعلى سوق لساني يقول قولي السلام عليكم مبقيني yi ñuy seetaan fii ci al mubasira ngeen di am suñ jotaayu faju mag ñi ci waxtu ne ci heure nga ci wax ak yéen tey nag ñu ñëw ki yéen ci benn tomb boo xamante ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax bi xale bi ñëwee ci yonent bi ne ko dama bëgg nga dénk ma li nga xamante dina defar sama àdduna ak sama alaaxira yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa ko ne ko ausiku bi taqwallah fa innahu umuurun kullu mu ne maa ngi lay dénk nanga ragal yàlla ragal yàlla nag nu ko boroom xam-xam yi waxee mooy ragal yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbb ragal yàlla ci lu feeñ mooy nga nangoo topp li yàlla digal nga def ko bàyyi lépp loo xamante yàlla tere na ko ci ni nga xamante ni moom la ko yàlla gërëmee ak moom la ko bëggee ñaareel ba mu ne ko maa ngi lay dénk wa alayka bi tilawatil quran na nga bërit looy alquran ndax wa zikrullah ak tudd yàlla li tax fa innahu nurun lakka fil ardi wa saqarun fi sama mu ne maa lay dénk na ngay bëri jang alquran ndax jàng ak bëri looy tudd yàlla ndax bëri jàng alquran ak bëri looy tudd dafay nekk leer ci kaw suuf waaye it dafay nekk ndexeteef ci asamaan yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dal ko waxaat na ko iyaaka maa ngi lay moytundikuloo kasiratu dahik nga bari looy ree maa ngi lay moytundikuloo bul bari ree ndax fa innahu yamitul qalb ndax bari ree dafay wool xol wa yashabu bi nuuri wàcc te dafay demee leeru karam bon ree bu bëri dafay wowal xol waaye leer bu bari it dafay demee li nga xamante mooy leeru kanam yenentu waxoon ci benn addis ne ndax am na ci doomu aadama mu ne xol dafay xomaat ñu ne ko waaw mu ne waaye nag bu fekkee sa xol xoomaat na am na lu koy dindi ñu ne yan yenentu lan moo koy dindi mu ne bëri tudd yàlla ak jàng téere yàlla bi ñaareel ba yonent bi na ko alayka bi samt ilaa bil xayr maa ngi lay dénk na nga bari looy noppi waaye ci lu moy ak yiw bari noppi lu moy ak yiw ndax fa innoo matrudul seytaanu ale anka waxaw nu lakka ala amri diinik mu ne bari bi ngay bari noppi ci lu dul yiw loolu day dàq seytaane ci yow waaye it daf lay dimbale ci sa mbiru diini mu waxaat ko ne ko wa alayka bi jahdi fa innahu rabatu ummati mu ne ko maa ngi lay dénk nara nanga nga di jihaat ci sa bakkan ndax jihaat yi ngay def sa bakkan loolu mooy nekk sama njàmbaaru sama xeet waaye ma dénk la na nga bëgg mboole miskiin yi wante yi na nga di toogaale ñoom ahibul masakin wa jaalis lahum bëggal miskiin yi te toog ak ñoom bon loolu mooy li nga xamante ni moom lañ doon doon andil fii ci suñu jotaayu faju mag ñi di leen wax ne laaj nañu sax euh, ñi nga xamante ni safoo nañu ko duñu laaj lan mooy li nga xamante ni bu ko doom aadama bi defee ca du ko topp waaye bu fekkee dal na ko it moom mu nekk koo xam dana ko mën a saafara yenentu waxoon sallallahu alayhi wa wax ci ne ni nga di bind fatiha aaya bu nekk nga def ci fallaxi ak naasi ba mu jeex boo ko jëfandikoo incha allahu bu fekkee cat topp na la dina dañ waaye bu fekkee it tamit eh, yaa ngi koy taxoo cat du la mënal dara loolu mooy li nga xamante ni moom lañ leen doon andil ci suñu jotaayu faju mag ñi di leen jox di daje benn yoon waa axir daxawana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم